bi moy ñetteel bi yoon muy génné ci gafam ay ndimbal diko ko askanu mbacké ba coronavirus bi tambalé léegi alxames bu tey jii Gallo Ba directeur général Sojib SA di responsable politique APR fi ci diwanu mbacké fukki million ci ay CFA la ñu xi ko ceeb ak suukar. li na dafa ñew motali sunu yéene ci jëf ñon def fan yi yëpp déjà amna la lu jox préfet mu yojité mo xamné mo jité le comité départemental de la lutte d'une valeur de 1 million il y a des postes de santé, des draps, des euh, euh, produits d'hygiène, alcool gel, des gants pour faire des personnes de santé. en première ligne, également euh, maladie. Il 20 tonnes de tièbles dans Je pense qu'on est à 8, 8, 8 tonnes de sucre. Donc on est autour de 10 millions. Donc les contribution pour les populations embarquées amul amul dañuy quartier nga fa sans distinction de qui fait la bok, ak qui la bok c'est destiné au quartier aux populations ku ñom pour woné suñu yéne ci ñom buñ sañon tay dañuy fi waccé lu li fouf euh, dañ suñu ak suñu ci population yi nous di également ñu képp ku jot nga ci quartier ba nga dëkk amul tay benn quartier Mbacké buy dess amul tous les quartiers de Mbacké dañ ko dañ ko dañ ko diviser ay zone ñooñu ñëpp inshallah dañ dana yónnee sen sen sen sen sen seen ay lot pour ñu mën ci euh, dimbali population yi nga xam vraiment dañ ko dañ ko dañ ko yittewoo ci jamono ñu toll nii ba mbas bi duggee ci réewum Sénégal ba léegi diwaanu yi ñeent fukki doomu aadama jot nañ ko fi am moo ne am na ñu nga xam ni ba léegi ñu ngi koy weddi galo Ba di wax ne ñoo ñuy faaw rek nu soññi leen ci nu jël seen matuwaay. waaw dañ leen ñaax rek ñu gën a gën a sàmmonte ak ak ak yi nga xamante ni moom la ñoom la waa personnel santé di joxe feebar bi lu am la saa su nañu dégg ñoo xamante ne nii euh, Touba dëkk wala Mbàkke wala ci réew mi wala ci àdduna ñu ñàkk seen bakkan. kon nag jot na it ñu gën a xam ne lii lu wér la lu am la ñu jéem a sol suñuy masque di rax suñuy loxo ba mu set loolu même temps normal jàpp naa ne dafa war a nekk loo xam ne mooy mooy li parce que développement bi dafa ànd dafa ànd ak wér gu yaram kon dañuy ñaax population yi Mbacké ñaax population département de Mbacké yëpp ñu gën a ci bàyyi xel euh, en tout cas loolu laay mooy sama message mooy message également de tous les responsables yi ànd ak man tey ci pour que population yi gën a xam ne que lii lu am la tey war nañoo góorgóorlu ba bu mu laajoo ci ñun. li ñeel kàddu ñaxtu yi nga xam ne ñenn ci kujje politique yi ñu ngi koy yëkkati di dal ci kaw président Macky Sall gannaaw ba nga xam ne jël na ay dogal waaye fal état d'urgence ak couvre-feu directeur général SOGIP SA di wax ne ñooñu daal ñoo xamul li ñuy wax ne président Macky Sall diisoo na ak ñi mu ci war a diisool. non man jàpp naa ne président de la République c'est un leader c'est responsable. dañ ko dañ ko dénk réew mi dénk ko suñu santé dénk ko sunu alal te lu mel ni su amee tamit dafay baax it muy déglu.

boo xoolee li xew ci àdduna bi yëpp loolu moo fa am donc débat yi am nii pour man amul sens te dañu war a ba population yi concentré wu ci xeex feebar bi débat bi du weesu bu weesoo ñu def bilan évalué si la position de l'État si la posture du président a ont été adéquates durant la durant la pandémie.